jàmm li ñuy ñaan fii ci Sénégal émission bi mooy dalal jàmm salaam eh, ya salaam yonen onze billah bismillah ina yàlla barkeb borom Touba ñu ngi leen di jaar bu baax a baax yéen sunuy mbokk internet Dakar Instant ak di leen tatagal di leen safo di leen ndamoo te di leen màggal ci saa su nekk ci bés bu nekk nin koy defee ak yéen ñëwaat ne nag ci seen émission bi nga xamante ni naam yéen a ko taamul seen bopp waaye nag yéen a ko bëgg ndax Olof Njaay dafa wax ne wax ji wax ji wax ji wax ji wax ji lum dëgg dëgg dëggu lum neex neex neex ku koy dégg na yor noppi garmi fa mu jógee doon làmmiñu garmi ba tax na lépp luñ mun ci bégal leen ci seen émission bi ngeen taamu muy dal jàmm dinañ ko def ki nga xamante ni nag tey moom la àndal wax dëgg fa duñ ko présenté ti àdduna Sicap Derklé Liberté ak fépp ci àdduna foo dem géejawaay Pikine yëmbal Kër Masar Kër Mbay Fall boo génnee ci dëkk bi su ma neexee ma ne Thiès Louga Ngaay ba Ndar ñëpp a ko xam muy xale boo xamante ni ñëpp a koy teewlu ci kàddu gu dëgg gi ci baat bu neex bi ci sell gu am solo gi muy sunu mbokku taalibe di sunu xarit ñun man moom sam xarit la wax dëgg fa ñu gën ko xam ci Sidi la di Sidi Noreyni Sidi tey maa ngi lay ziar ay ngandub maamu ziar nag yu ponkal bëgg naa la Sidi. lamp say lamp maam say na bu njaay bay faal bi bambataal yow a yow lamp maam. waaw waaw Baay Faal bi Bamba taal àddina na day bëgg jeex maam am gaañu bañe bëgg jeex yawa yawa lamp maam waaw waaw bi Bamba taal ambar yu ndaw yeey bëgg seex maam Seera xam na ka pexe yawa yawa lamp maam Nabou Ndiaye bi Bamba taal yow ah, moom de. la de Cheikh Ibra cooli dëgg bàyyi laa faal. wallaahi nee naa mun na de waaye dëgg. waaw waaw koy dégg de. ndeysaan dëgg la. Ahmadou Fall Sayer Ndiaye. waaw ah, waaw. cey mat. sa jéey Faati Penda laaj. su ko béy. Ah. <laughs> damel fa njóogu damel. damel sama yaay faal waaw mu ngi noonu Ibra teewlu tuuti li nga xamante ni moom la Seydi def ñu doog a ñëw décortiquer ñu teewloo muridina waa xaa ñu barkeelu ay béyit baabul muridina baabul muridina mafar ma yaasin daawul mi ci mbul benn ya bulaay maam benn eh, eh, eh, mhm. Mhm. li doy na waare. Mhm. foo amee inspiration Baabul Mouridina bi. Euh, soxna Aada Mbaye. waaw Cheikh Ndigal Fall moom Cheikh Ndigal dama ko déggoon mu koy zikkër léegi nag ma daal di koy jël am na ñu bëri dañ ko dama ko dégg ne leen dinaa ko zikkër ñu ne man yow nii noo koy zikkëree paale ma ne leen ko ci sunu gaam ñun waaye su ma koy zikkër sunu gaam dina am yoo xamante ni dinaa ko ci yokk di jaajëfalaat tamit bambataal mhm. moom tamit mos naa dégg benn audio mu barkeelu ko ci mhm. di ko ci di ci zikkërantu nii mhm. di ko ñaanal sunu borom xaare ko àjjana sa waay la barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Fallou Xayra tamit maa ngi koy waaw Fallou Xayra maa ngi koy bëggee manit bu wér a wér mhm. léegi maanaam si lañ toog di inspiré wu mhm. daanaka weeru koor bi ñu koy zikkar gis ni gars yi bëgg nañ ko mhm. ndax Cheikh Ibra moom wax dëgg yàlla képp kuy murit sa xol la nekk ndax lu tax ñu jëriñu Cheikh Ibra ko indi looloo waral nag ñu ne pourquoi pas ñu dugal ko singal may ko mbokk taalibe yi Baay Faal yëpp si lañ daal di xalaat nag am ñu ci yokk dugal ko ci. moo taxit doy na waar ci leen ko xalaat am luñ ci yokk incha allahu rabi yéen a ko déggandoo le 6 juillet bii incha allah rabi ñëw na ba pare. mooy talaata Cheikh Ibra. lañ taamu nag pour génne ko ndax talaata moom ñëpp xam na ne Baye Fall yaa ko moom. Mm-hmm. léegi nag dañoo bëgg talaata incha allah. Mm-hmm. ñëpp jëm si page YouTube bi Sidy La Noreyni. Mm-hmm. ñu ñu xaar ko fa daal jeex na tàkk comme waa Dakar instant dégg nga li ma leen ci jot a am nag ko njëkk am ñoom ñooy hmm. ñooy njëkk a am lépp ñooy a am waaw ñoom ñooy instant yi ñoom Baye Fall yi seen i xarit leen ñëpp ah. seen i xarit leen moo tax lii laa leen ci jot a hmm. waaye incha allah li ci des le 6 na ngeen dem ci page YouTube Sidy-la Noreyni bu ko defee di ngeen ko déglu intégral incha allahu rabbi ah, di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wàcce ngaala ma Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni jaraama borom dóori si kaw ñaan Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou mu yàgg fi loolu te di ko ñaanal noonu Serigne Bassirou Mbacké moom borom dóori al moxta mu yàgg fi loolu tànn dëgg wër sëñ Cheikh Jëmb Fall ñaanal sunu jàmbaari Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mu yàgg fi lool ndax tam di borom daaru Noreyni ngir mu yàgg fi njabootu Seydina Ousmane bi yëpp waaw di la bëggaat bu wér Cheikh Ousmane. <laughs> macha allah maa nit maa ngi lay bëggaat bu baax a baax di bëggee sama waa ji Serigne sama xarit bi moom mi nga xamante ni maanaam saa su nekk ñu ngi jokkoo ci lépp loo xamante ni yaa ngi ci. mu doon mbokku taalibe boo xamante ni tout tànk la mais yàlla nañu jaajëfal ko ndox ku baax la mm. macha allah te day dund ak gars yi li nga xamante ni mooy tawféex waaye mm. si di am na luñ la tàmmal ci baat bu neex ba nga tàmmal ñu ko tamit ci baat bu neex ba xam naa balaa ñoo xus rek di nga di nga mosal gars yi tuuti ñu doog a daw. <laughs> waa Cheikh Ousmane waa kon xanaa ñu jéem a barkeelu rek. ay ci yàllaahu bil Mustafa sindi de وبحليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سنديد يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبخليلك ساسالين قديرين وبسعيب وائس معي لياله وبسليمان هن يونس اليشائي وزكريا آيا يهود يا له haruna yusufa il yasin wa hadamada wuda wazil kifli saluta yallahu wa yusufin wa biis xaaxin wa xayrihima minat biya in warus lillaaka yallaahu wa bi malaa'ikatu ransumma saawatihim jibrila summa bi mikaayila yallaahu wa saayibil nafis raafina xaabidi ard waqil xalaa'iqi Israa'iila yallaahu wa bisabati sum mal awliyaa imaan wal aamiliina minal axbaari yallaahu wa bisadee wa bel فاروق ثم بزي نورين ثم هابي سبتين يا الله barke borom Touba ndeysa <laughs> neex na de Sidi tey dag maa bett xam nga lu tax xam naa fu ne nii moom daaji fu mu ne nii moom ndeysaan ñu koy ñaanal fa mu nekk moom xam naa ne leer dana ko sàppi muy jóorin Atou Diagne waaw tey moom yóbbu nga ma ci ñoom Ablaye Diop ay ñoom ndaam wax dëgg faala mais Sidi maa bett ndax man dafa am boo xam ne dama ko bëgg ñëpp bëgg ko ma ko doon xaar muy ca mat la bul si faay Sidi daan nga ko sifaan wa faydan yaa man yaroomu dafa kulli daay falaatu faarix mat la ba si وأدم علي في المساء والصباح وألسن تنل شفاء وفلاح بإذن ربنا بإذن ربنا وجاء المصطفى صلى عليه ربنا كما صفى بإذن ربنا وجاء المصطفى sala alay rabbuna kama safa <laughs> neex na loolu de ah nee na de karaamati xattu ya waaw nee ay karaamaam daal moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul buñ koy seet rek nañ ko xool ci mbind loxo mi te sindi di gi nga moo bind mat la bul sifaay moo bind rab bi moo bind tuxfatul mutadarihin moo bind wa kaana xan jaalibatu ak leneen ak leneen Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bind na lépp moo bind wax dëgg fa yàlla waaye siidi ñu gis diggante Sicap Jëppal Castor fépp Sidi Sidi Sidi Sidi waaye Sidi yor ñaari touche yoo xamante ni ñun dañ koy seetlu muy Sidi sikkarkat dëgg la kenn dootu ko werante waaye Sidi dafa jël li nga xamante ni mooy bind ko tedd yi defaraat ko ba mu ñoŋ ndax gis nañ ci fusti zikkar bi ko zikkar foog naa waa Dakar instant sax ñoo ko njëkk a def intégral waaw comme nii ñuy waajee def leneen integral ñoo ko njëkk a def integral woon ko àdduna inspiration boobu Sidy foo ko amee waaw Cheikh Ousmane xam nga maanaam dañoo ñëw fekk fi suñuy ay mag mhm. ñu doon ay jàmbaar lool mhm. maanaam ñun duñ na tarbiya nañu wala sonn nañ ci daal ñu daan mhm. topp seen ginnaaw di gis maanaam ñoom niñ daan naf nafe léegi maanaam pour se faire il faut ngay def benn affaire boo xamante ni dinañ si bàyyi xel. Mhm. te maanaam sëriñ bi xasida yi ba mu koy bind. waxul pour ñeneen duñ ko jàngal wala ñeneen di duñu ko duñ si duñ si fekk daal ba niñ si raw ak yooyu. Mhm. moo tax ñun ñu jël xasida yi ndax maanaam ku nekk si li nga yëngu si loolu nga mën a wane sa bopp si li ngay dund si sëriñ bi. Mhm. mais pourquoi pas. jamono bi comme li ma doon wax ñëpp ma ne leen maanaam dañoo toll si jamono bi nga xamante ni. àdduna dañuy dundee rythme. maanaam xii lu may wax chaque jour kenn mënul wax ba bokkul ci yoon wi ci la mm-hmm. bokk ndax Cheikh Ibra mooy yoon wi te moo indi xiin nee na sax fa mu jëlee xiin waaw ba mu fay dem waaw bu fekkoon lu gën xiin loolu lay indi loolu lay indi léegi moo tax ñun à chaque fois dañuy jël xasida yi maanaam a travers ñun ñu koy wax noonu ci rythme boobu yow rythme bi na la si dugal mm-hmm. waaye di nga dem ba mokkal bayitu ku tedd ki mm-hmm. te doo ci bàyyi xel sa nafsin bila darari waaw njëriñ la amul lor la léegi moo tax na ñun ñuy préféré di gëstuwaale ci xas yi ndax ma damay kuréel. Mhm. ndax damay répété chaque lundi ak maar chaque mhm. guddi àjjuma du ma dem sax zikkar des fois. Mhm. répétition laa dem kuréel laa dem defi. léegi nag loolu day am solo léegi ñi nga xam ne dañuy déglu xas yi te amuñu tawféex sax di ko durus ñoom à travers yow. mën nañu mokkal xasida bi. comme fust bi am ñu bëri ñoo xam dañ may woon ne ma yow bu dul woon yow man du ma mokkal benn béyit. dëgg la si xasida bi te léegi dañ koy tari te duñ ko xool. loolu mën na la jox nag envie. ba nga dem maanaam gëstu ne kii li muy def nii léegi xaama dem jéem a xool téere bi dem fer iji mhm. ba di ko durus mhm. te loolu ne dañ ciy santee Cheikh Modou Noreen bu baax di sant sëñ Tuubaa bu baax mhm. ndax moom moo tax sax waaw ba nuy xalaat loolu ba di ko def wallaahi mais macha allah fusti bi xam naa da di nga di ma ci mosal ndax yeesal ba daf maa rëcc yaa umaru hil malik yaa umaru hil malik يا هم جاء للهالك ابنك لا مهالك عند الهالي المماسك بارك فيك ذو الجلال وفمك نافد على بما يخالد الخلال لخارين مماسكي هدياتي قصي بلا رد كما تبلا نكاري من خبينا من جاديك المستبرك ndeysaan xam nga ni neex na de waaye nag loolu ku ko dégg sa wax ji mun neen wéeru ci dialogue islamu chrétien mm. ndax maanaam ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba xam nga man moom sama jàng daa xawatu sori mm. foog naa mu ngi ci wax ak maanaam ki nga xamante ni mooy Mariam mm-hmm. di yaayu instant jigéen ju sell jooju di ko mm. fa delloo njukkal bu baax a baax nga xam ne ku tedd ki moom lépp la teel pek pekk lépp la teel xam ne muy demee waaye siidi phénomène dafa am léegi ci sikkar mm-hmm. mooy gone yi ak ñi mel ni man ku jig di sikkar te béyt yi nu leen neex lañ koy waxee Sidi Mm. waaw. waaw Cheikh xam nga dafa fekk ni ñu naan <coughs> lu sotti am boroom mm-hmm. xam man tey jii zikkër am na ay jamono yoo xamante ni comme jamono ñoom Baye Moussa Mané dem fekk wuñ ko sax. Mm-hmm. waaye boo toogee yenn mag yi ñu lay nettali lan lañ lay wax boobu kenn ñemewul sax yow di dugg ci kuréel te amoo ay njàpp ak mm-hmm. ay yooyu. soo xoolee loolu noonu nag jamono bi sax. ndaw ñi ku ci yeewu dëgg dëgg dëgg da dem gëstu ji. ku bugg raw see maas daal. boo gëstuwul maanaam. da ngay da ngay limité. Mhm. ndax maanaam Cheikh Ousmane benn secret amu fi. Mhm. muy man muy keneen ak keneen xas day rek. Mhm. ku la ci mën moom moo lay mën ci waar waaw te xas day moom wax dëgg yàlla doo ci nekk mukk ba kenn di la si raw. wax dëgg yàlla. ndax Sidi dafa am phénomène bu doy waar léegi ci gars yi ah, ba dañ la ciy mere sax dangay ngay dugg si cant gis leen ñu takk yi jaaro. sol ay casquette. def body ba pare di xëccoo. di wax ay naka su dul noonu. ba pare maanaam après nga xamante ni. Mm-hmm. da ngaa bëgg a comprendre tem nga bañ a comprendre ak ñiy seetaan ñi mm-hmm. tem ñu sikk si ñu siidi ci yooyu loolu ak xale yi lay bëggee en tant que siid lan nga leen mën a dolli waaw maa ngi dégg béyt bi mu naan suna tuxul xaraa ooy naxmadu mm-hmm. sëñ Tuubaa ba muy ñëw si si jamono dafa ñëw pour yeesal sunnay rasulullahi kon lépp li nga xamante ni diine la moo ànd ak mbiru sëriñ bi mais lépp li nga xamante ni bokkul ak diine wallaahi du sëriñ bi loolu képp laa ne wax xam ne Baay Faal mm-hmm. jaamu yàlla la te jaamu yàlla nag lépp li nga xamante ni da koy daf see bokkul bokk ci mm-hmm. ndax lu yàlla lu lu baax moom àdduna du neex ba mu bon mm-hmm. lu bon nag àdduna du neex ba mu baax peut-être ñu si bari ñàkk xam ak yooyu moo leen ciy dugal ak yooyu waaye dëgg-dëgg liggéey bi moom waaw loolu la daal mooy set sellal bëgg sa bopp yar ak teggin taalibe loolu képp fi jëriñ doomu aadama macha allah yar ak taalibe rek ay jëriñ nit ndax dégg nañ ko ci sëriñ bay Jaxate mu ne asal lu mën a xew awal ndigal te yaru yow di nga làkk bépp biiw tey ak ëllëg maa la ko wax ndax nag loolu gis nañ ko ci siidi say yar ak sa teggin gis ko ci ni nga ndaw ñi yow boo déggee mobiliser ndaw ñi mooy tout temps que sikkaa bi ñun dañuy gis danga leen di conseil di leen teg ci yoonu baax waaye nag kuy sikkarkat tey ndaw da ngay ànd ak ñoom sa diggante ñoom ñoom kàllaam sa digganteeg Issa sama bàkkkat bi sa digganteeg Assane Mbaye sama bàkkkat bi moom dama koy gis ndax nag loolu sikar moom moo ko bàkk Assane Mbaye di ko ñaanal mu yàgg lool te wér lool ku ñàkk ki ñaan a ngi ñoon ku fonk liggéey am jo moom référence la ak sama waaja taalibi Serigne Khadim Lo gaydel borom ndaam bi Amet <laughs> du nit Amet àjjana la eh bàyyil Amet <laughs> Amet sama waay la Amet ay pàttaleen di ko tuddaat di ko bégewaat Serigne Saliou sa waa ji <laughs> ah. moom mi nga xamante ni lépp daf ci jàpp waaye fu mu ne nii damay këtt ndax Sidi fi mu jaaroon ak li mu def ba sikar yooyu jotoon nañ cee waxtaan hmm. dinañ am lu gën a yaatu fu mu ni nii nag Sidi dafa jot projet Sidi laa lan mooy se projet fu mu ne nii tembe xam nga ñu naan compte boo gis day tàmbali si benn. Mhm. instant bii nii comme single bi lañu la ñu jublu nii. Mhm. instant ñu ngi defar sax ay carte yoo xamante ni ay cartes barkeelu lañ koy tuddee. Mhm. ndeem ñun sax ñu ñun dogal si ñu ñu am carte barkeelu. waaye dafa fekk ne ñun tamit si la ñuy yëngu. te dëgg yàlla kenn woo ñu cant bañ na fay ñu lii wala defal ñu lii. mbokk taalibe ñoo ñu mën a jàppale. ndeem autorité yi nekk si Sicap. ñoom boobu ba léegi. ñu ngi gis waaye dañuy toog di xaar. fekk ñu kenn. léegi maanaam góor jàpp ci góor la ñuy dund. Mhm. képp kuy déglu audio bi jàppal ni Sidy boo ko jàppalee ñu na dem. Mhm. ñu ngi defar ay carte barkeelu génn na sax. Mhm. carte barkeelu ñu ngi koy defar daanaka léegi mbokk taalibe dañ koy wecc bu ñu koy weccee ñu ngi am ay projet concert. ndax bëgg nañ dem Sorano. waaw waaw album bëgg nañ ko def. dëgg la ak clip bi instant yi ñu ngi si yooyu noonu yëpp daal. di sàkku nag si mbokk taalibe ñu ñaanal lañu si bu baax te ku ci mën a jàpp rek mu jàpp ci ngir jëmmi Serigne Touba. macha allah ku ci mën a jàpp nga jàpp ci ngir jëmmi Serigne Touba ñun waa Dakar instant ñoo ngi ci te jàpp nañ ci ngir Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax ni ko si di waxee rek Dakar instant tout l'instant ñun dañuy partager ak yéen yi nga xamante ni mooy moment de bonheur ñun ak yéen. santandoo ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon le 6 juillet incha allah rabi nak ko ñëpp xaar ci page YouTube Sidi La Noreyni waaye Sidi La damaa bëgg balaa ngaa dem balaa ñoo tàggatoo nga kañal ma Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni roxal ma ci borom daaru ñu doog a xool nan la ñuy def maag yow. yaa ngi may diis da nga may bañ ah, dama lay poobar li Alioune Mbaye naan poobar naa ko. <laughs> est-ce que. waaw layla illallah borom sikoore Cheikh Modou Kara yow la jaami doyloo allah layla la borom sikoore yaay sunu ndey di sunu baay di sunu gën gi yërmande allah layla la borom sikoore gi sunu yaay te ngi raam ku ñàkk yaay day napp maam allah layla la borom sikoore Cheikh Cheikh Ousmane baax ma bàyyi foofu rek <laughs> ma bàyyi foofu. si ndeysaan dafa dafa daf ko jaar nag. moom Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni dafa defal Sénégal loo xamante ni mat na nu ndey nag mat na nu bàyyi te mat na nu ngën gi yërmande wallaahi azim ndax ki teg sunu kanam Cheikh Ibrahima Fati borom daaru Noreyni naaru soxna Penda Ndaw jooju maanaam def ko ni ko def ba ñun ñëpp ñu jublu ko. muy référence ci ndaw ñi kon buñ goree. duñ def lu dul ne ko jërëjëf waaye nag siidi bu doon mbër am na ñu jàpp ci cumukaay bi. ñoom yaay nga waxtaan ak ñoom sant doog a tàggatoo. waa Cheikh Ousmane. Mm-hmm. xam nga mbir bu nekk rek. daa am lu ko waral. Mm-hmm. maanaam comme lu ma la doon wax yàgg naa ko wax. Mm-hmm. ñun single lañu def yëpp ak événement ñu sa dem yëpp. du du kenn ku si jàpp lu dul ñi nga xam ne ñoom ñoo tuddee seen bopp soppe Sidi Laay. benn groupe WhatsApp la. boo xamante ne ay ndaw rek a fa nekk ñi fa nekk yëpp kenn maguma ci kenn kenn. ñoom ñëpp maa leen mag. mais teewul ñoom dañ maa bëgg te yàlla rek tax. Mhm. bu ñu amee seen dërëm ñoo indil ma. Mhm. lu ñu ciy def ñu def ko ci. Mhm. ak sama gaay yi. ñoom Assane mbay moom moom xam nga sànq yaa ngi laaj ñu ma def ak sama mbokk zikarkat yeeg baaxkat yi. loolu après incha allah bu ñu kiyee léegi ma ñëw ci. waaye Assane moom it xoolal lu lu ma ko lu ma ko jox ak lu ma ko ñàkk jox. moom appel lay xaar. yàgg naa ko fu ne. léegi nag su ma waxee ci moom sax waaw dañ naan. da koy waaw xam nga. man man fekkee na. maanaam moom waaw voilà. Amer Sarr Amer Sarr tamit même chose. Hmm. moom moom. bañ na ko ba waaw dafa dof dafa dof. dafa moom moom moom ma bëgg la bañ. lu ma hmm. bëgg rek da ciy nekk. Hmm. ay tafandooy. Lamp Fall borom Liberakaat moom it lu ma bëgg mu dox ci. sama gars yi ñoom ñëpp barke sëñ Tuubaa sëñ Saaliw kooku tamit moom. dama ne bu ñu doon wax ay homme de lembre ñoo xamante ni tey jii bëri na lu ñu may jëfal loo xamante ni su ma ko toogoon di wax wallahi mooy la ay homme de l'ombre lañu. Mhm. taxaw nañ ma si lépp. Mhm. wax dëgg yàlla te ay ndaw lañu ah. Mhm. billaay wallaay sama gars yi waa Liberté 4 ñoom Assane Fall. xam nga gars yi dëkk foofu yëpp Liberté 4 yëpp yëpp barki Serigne Touba. ay xam nga sama waa koñ tamit. waa Liberté cinq ñoom tamit macha allah waa Derklé. Derklé tamit foofu. gaar dañu maa bëgg lool sax ñoom tamit. Mm. waa direct la Sicap daal 1 ba 6. Mm-hmm. jëppal Kastoor ñëpp. xaar yàlla grand waaw xam nga gars ñoom ñoom ñooy ñëw. man yu bëri yi may def man bu desee si man rek dama xaw a féex sax mun naa ko wax. Mm-hmm. ndax man yu bëri dama naan ax ah, zikkar moom mooy lool mais ñoom ñooy ñëw na ma lii ñoo ko dajale jox la ko demal dugal lii singal te fan yii sax incha allah. Mm-hmm. maa ngi waajalaat beneen single bii bu jàllee un mois après. avant Magal Touba. incha allah dinañ indiwaat beneen single ak clip incha allah. jeex na tàkk. te maanaam sànq da ma laaj sama diggante ak sama mbokku sikarkat yi. waaw nga ne ay kalaamook ñooñu. Mhm. ay isaa mhm. maanaam kalaamu maanaam moom du ñu wonte sax si tur. Mhm. moom jumeau la may wooyee. waaw moo ko waa parcelles yi. ñoom it ni muy àndal fu ñu teg kalaamu man fu ko raw lañ ma teg. kalaamu si ngalam yëpp man maa ko si këral. ñun loolu lañ war di defante si Ousmane. mooy yoon. man am waxuma la sax waa kër ñi ma ñi ma bokkoon nooree moom rek ñun dañuy gis ak année Mandiaye Fall yaay ànd ak ah, Mandiaye suñu mag la Mandiaye gauche suñuy mag lañu mhm. sóoru mes mhm. Souleymane mhm. Ahmed Ndiaye ñoom ñëpp suñuy mag lañu Kader Mané ñoom ñëpp suñuy mag lañu man de wax dëgg yàlla waxuma la sax ñi ma mag mais man ñi ma ñi nga xamante ne man maa leen mag sax ku ma ku ci am sa single woo ma damay ñëw ndax loolu mooy liggéeyal sëriñ bi ñun dañoo bokk lépp man waxuma la sax waa kër gi mais ñi nga xamante ni bokkuñu ñoo bokk Seydina Ousmane sax. Mhm. waaye dañoo jokk feneen. Mhm. sax samay waay lañu. Mhm. aw ma see kenn xaar ma yàlla ndax tamit nit bu fekkee da ngay dund leer mu nekk sa xol. wax dëgg yàlla ay xolub ki ñaanak ak ay kila laa faral kii laay kii mooy lii noonu non loolu waruñu ñu wallaahi lazim loolu waruñu dal ndax dañoo war a wane loo xamante ni ñun ëllëg suñuy raq bu ñu ñëwee. dañ koy nekk su suñuy tànk la ñuy topp. ba am xiiroo du am ngaayo macha allah waaw ah. macha allah ëllëg suñuy rakk buñ ñëwee ci la ñuy topp mhm. la sii di wax ba duñ am xiiro duñ am ngaayo ndax lu rafet des koy rafetal mhm. lu ñaaw amul ci ñun ndax wax dëgg fa yàlla fooy utee leer mhm. wala nga fay ut ngërëm leneen loo fa def yaa ko fa yóbbu waaye bokk ca ndax dañ ne maanaam sóoru mes dama faral sax day dégg mu koy wax te nga xamante ni Serigne Mbaye Jaxate ko wax mu ni xaalis lu weexul bokk ca lu weexul bokk ca ah it ku baaxul bokk ca wurus lu sellul bokk ca ndax wurus lu sellul bokk caa njëkk xaalis lu weexul bokk ca bàmba ku sellul bokk ca naam nag dangay ñëw ba bokk ci bàmba naam boo sellutoon bàmba boo ñëwee dalay sellal ba nga set kon nañ fexe di wax lu baax ak di ko teef te booy xool nit ki ngay xool ni sa bopp ngay xool boo ko defee rek ndag dina am maa ngi leen di jox rendez-vous nag incha allahu rabbi le 6 juillet ci baabul muridina bi ak Sidi la jërëjëf Serigne Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wa ma ala mani tabahul huda barke borom Touba. instant rek yaa ma gën a xam. man xaw ma ci kaw leen jugee man dama jéggi saa rek gis leen ba pare foo tourné Dakar instant ngay gis. mais loolu kaw ca kanam rek. waaw ah daal gis naa seen caméra bi ni mu timi xam naa ne bëri na doole trop ba mënuma xool bu baax damay pis pis di pàcc pàccal nii. waaw Dakar instant maa ngi leen dama leen di suivre page seen i page YouTube daal. waa dakaar instant moom boo xoolee ñoom seen tur rek day wane lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant. waaw c'est une première mais ni ma gisee dakaar instant dafay prouver ne dakaar Dakar instant ci kanam la jom incha allah. gars ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen laay wax na gars dem abone loolu bëgg si actualité ñëw lañ si dakaar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xee information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant. waaye Dakar instant dafi nekkal Baye Fall yi dafi nekkal war a siiw comme ñëpp. wax ci Dakar instant. Dakar instant yéen a ngi instantané. boo yeewoo moom laay seetaan. boo tëddee. moom lay seetaan booy sinap. Instagram. Twitter. Imo. Dakar instant. Dakar instant à tout instant. maanaam ñu ngi koy ñu ngi ba mu baax. astuce. Dakar instant di leen bëggee rek. Instant Dakar. Dakar instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur YouTube.